mbokki internet yi rawatina ñi nga xam ni ñooy ànd ak lii di programme info Rewmi dal leen jàmm ñu dikk ak yéen ci seen rubrique kumpa gi gannaaw ñetti ay bés ñu jàppoon ci xeexoo yi nga xam ni doxoon na ci diggante ñii di ñooñu Doudou Ka di responsable APR foofa ca Casamance ak ñi nga xam ni ñoo ànd ak Ousmane sonk mu amoon ci fukki fan ak benn ci weeru octobre bii ñu génn foofa ca Ziguinchor xeexoo boobu nag nekkoon na loo xamante ni ji ku si nekk yaa ngi doon duut baaraam sa moroom ni yaa ko waral ba tax na ñi nga xam ni ñooy ñooñu Ousmane sonk yi ni jàmmaarloo woon nañ jàmmaarloo yu métti ak ñi nga xam ni ñooy ñooñi ñi nga xam ni ñooy duudukaa ba ci loolu sax gannaaw saga ñu daal di jam kenn ci ñu bokkoon ci waa Pastef ba mu dox fa faatu waaye ci côté duuduka tamit amoon na ñoo xamante ni ji amoon nañ ci gaañu gaañu yu méttee métti waaye mu mel ni loolu arrêté wul ndaxte li ko waral ñi ki démb ci foofa ci aéroport bu Ziguinchor ñaari leaders yi gannaaw bañ fa dajee dafa mel ni rek mbir ma dañ koo dabbaliwaat ndaxte ki nga xam ni moo di Ousmane Sonko dafa pare pour ñibbisi Dakar si noonu ci la Doudou Ka daal di jóge woon Dakar nag ngir ñëw foofu nga xam ni mooy soor waaye ci loolu rek ñooñu Doudou Ka yi ñoom dañu demoon fees dell ci aéroport ba daal di euh, yéene teeru ki nga xam ne rek mooy seen leader waaye gannaaw saga nag ñoom bañ fa dajee nag ñii di ñooñuy euh, Pastef yi ak euh, ñooñu ñi nga xam ne ñooy ànd ak Doudou daal di fay jàmmaarloo jàmmaarloo bu metti ba toll fukki nit daal ci am ay gaañu gaañu ba jamono ñi ñuy wax yéen ñu ngi leen rawale ci hôpital régional bu Ziguinchor loolu nag mu nekk loo xamante ni ji ci ñetti weer dong loo xamante ni ji ñu ngi waajal élection locale yi ci biir réew mi rawatina foofu nga xam ni mooy euh, capitale du sud du Ziguinchor ñoom nag dafa mel ni daal xëccoo ba euh, métti na lool te dara xewagul ba tax na rek euh, li nga xam ni moo jëm ci kaaraange yi nga xam ni war nañ ko amal foofa ca Ziguinchor mu nekk loo xamante ni ji ñii di état bi war nañ ci bàyyi xel bu baax a baax askan wi nag di simple blague ñi kii di Doudou Ka gannaaw ba nga xam ne nañ ko ci course bi ndaxte nag kii di président Macky Sall dafa daal di tabb ki nga xam ne rek mooy Benoît Sambou ngir mu daal di jiite li nga xam ne rek euh, mooy euh, list tête de bu foofa ca mairie bu Ziguinchor euh, taftal ci ki nga xam ni kii di Seydou Sané nekk président bu Casa Sport ana lan moo waral ba tax ki nga xam ni mooy Doudou Ka di wéy di andi ay jeexi jaaxa ci diggante ñi nga xam ne rek ñooy ñooñu Pastef yi ak ñi nga xam ne ñooy waa APRC mu mel ni nag dafa mel ni mbir mu montage lay nuyul wala politique moo ko lal mu mel dañuy jël Doudou Ka di ko xamba ci kaw ki nga xam ne rek mooy Ousmane Sonko waaye lu ci mën di am rek état bi war na si teel a balaa béy di wéy mbuus ndaxte dëkk bi nga xam ni mooy Casamance dafa nekk dëkk boo xam ne ji nekkoon na ci ay tolof tolof ci at yu yàgg ci li nga xam ne jàmm ji moom lañ fa doon sàkku kon nag tey nag du ñu bàyyiwaat eh, ay ñi nga xam ne ay politique la ñu war a déclenché li nga xam ne rek mooy xeexoo bi nga xam ni amaloon nañ ko at si foofu nga xam ni mooy bëj saalumu réew mi lu ci mën di am rek ñi xaar état bi jël si ay responsabilité am ngir jàmm jooju mën a wéy ca Casamance. ci ay simili yu néew ñu jox leen xibaar yu wér te wóor. ak daara du la rëcc ci réew mi